wa jannatan li saalikin muridi wa jannatan ñoo ngi fii ci Ndamaatu koni sëñ Cheikh ci deux voies yi fekk fi suñu ay mbokki taalibe yoo xam ne ñoo am taxawaay bu am solo boo xam ne dañ koo taxawu ci woote bi sëriñ bi woote ak kuréel bii nga xamante ne bi sëriñ bi taxawal na ko mu junatun li man na sama xoo nga xam ne biñ xamee ne ñoom ñu ngi ci seen quartier bi di liggéey xaaruñ ci kenn ndax liggéey bi moom bu xasee ba ndox mi su xasee ba am rek day mel ni kenn ku ne la nga am ci moyen danga ko ci def waaye bañ demee ba xam ne kuréel bi taxawal na sëñ bi taxawal na kuréel bi ci lañ ñëw fekk suñu fee ci kër sëñ Tuubaa gi ngir ñu collaborer ak ñoom ngir ñëw ànd ci liggéey bi monsieur Modou Badiane mi ak ñi mu àndal ñëpp nga xam ne Junatun bi extension la ci yenn gox yi nga xamante ne bii ay ndaw nekk nañ fa bëgg tey jàpp ndax liggéey benn liggéey la du ñaari liggéey moo tax ñu jël intégré ci commission bi jox ko bàcc jox ko gilet mu nekkal ñu ndaamaatu nga xam ne lépp lu mu soxla day ñëw ci kuréel ba ñu jox ko mu mel ni benn liggéey la ndax ñaari liggéey benn liggéey la ndax sëriñ bi ku ne xam na ne bi mu taxawalee kuréel bi boole ci mairie bu Touba Touba ci kanam ak istarax ya dana mooy ñeenteel bi kon sëñ bu duggee mel ñëpp dugg na kon ñu ngi lancé appel ci mboolem gox yi nga xamante ni bii ñu ngi ci quartier di liggéey ñu ñëw ñu ànd liggéey bi xam ne benn jublu mooy am fexe ba ndox mi génn ci kër yi fexe ba ndox mi génn ci mbedd yi kon loolu moo tax ñu ñëw fii tey ji fekk suñu mbokki taalibe bi yi nga xam ne ñoo leen intégré ci kuréel bi pour ñu ànd liggéey bi waaw maa ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di nuyu mbokki jullit ak mbokk yi ma àndal si liggéey bi yëpp muy waa kuréel gi maa ngi nuyu waa kuréel gi yëpp rawatina waa kuréel Junatun Liman Nasmoo ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale si liggéey bi liggéey bii ñu Serigne Touba Cheikh Mountakha jox pour ñu dimbale nit ñi si dëkk bi ah ñu ngi leen di parce que ñoom ñoo ñu si jàppale doole ñu si wala lépp ñu siy liggéey eh, lépp lu ñu def ñu mën koo def nu ñu ko bëgg a defee di si mën a dimbale suñu mbokk jullit yëpp ah ñu ngi leen si sant bu baax nag ñu ngi leen si taxawoo macha allah rafet na trop waaw jërëjëf. ومرفعا لكل هاد مسلمين ومرفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بنوف ارتدى ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومدركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل خير وسببا لفن خير الغيب وسببا لدفع غير العيب وكون على برزق وامان ورحمة وسعة كل اوان يا دافع الاسماء والاقدار بالمصطفى ارفع كل سوء داري واغفر لمن بنوا بنا الرفيع واغفر لمن امرهم لمن بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا وتجعلنا ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجل فيه بعلم يفهم ورفعة الصيد بقلب يخشون وليا فيه تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأزملا كنف سدرك أول علي مع جملة أهلي يا صمد واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسكرا وانطلق للجميع في مكنوني غيبك واحجبنا عن الفتون الشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكني المسكن وجنة لسالك مريد وجنة عن هادك